ubbil yéene kay bi démb ba ñuy def ndajem conseil des ministres fa la président de la république Macky santé premier ministre Amadou Ba mu jëli matuwaay nu mu gën a ngir dakkal xëy bi nee ko na ci ànd ak ministre intérieur ànd ci ak ministre forces armées ànd ci ak ministre affaires étrangères ngir ñu fexe ba ak gaal dootu départé ci réew mi naan ma ngay dem bitim réew le quotidien bi ni ci xëtamu njëkk ne Macky Sall teg na aw dig di ay l'heure est grave mbëkk mi ni mu mel ci réew mi dafa jéggi dayo li marinub jàpp ci gaal fan yi toll nañu ci ñaar fukki gaal yi loo ak juróom-benn 26 pirogue ñene woon ca gaale ci nit mat nañu migrants bokk ci ñoom ñaari téeméeri jigéen ak ñaar fukk ak ñeent ak ñaari téeméeri mineur ak benn gaalug loo gi fi déparé woon bari ñi doon dem Espagne anki dina mi ngi ñuy wax ne ci ñetti téeméeri migrants yi ca ne woon ñaar fukk ak lu teg le témoigné nee nañu ñoo des ci géej gi am na ci ñoom juróom-ñaar ñoo xam ne ñoo bokk benn famille jëy faali ga ca Touba Baye Fall bi ñu fa fetal mu faatu l'observateur ba i jaaykati yàmbaa ñoo ca nekk fa ba ñu fital fa benn Baye Fall mu faatu waa ji Moustapha Ñing lu tudd fanweeri at ak juróom la amoon amoon na ñaari jabar ak i doom vox populi nañu moom Baye Fall bi ñu fital mu faatu balu fital calibre 12 la ñu ko dóor ci dënn bi fa yëfe xew di ci ciy fal askano fa yeewoo vox populi ne nañu wax nañu ne ba fa bay fara ba jàll lu bari la yàqule jur ga ñu yewoon lu ca bari gisatuñu ko ñu gisaat coow li ci xët mu njëkk sursoi yéenekaay bi mi ngi ñuy xibaar ne ki fital bay faal bi mu faatu mbokk la ci ki ñu doon tuumaal ne da doon jaay pon ba taxoon ñu bëggoon koo jàpp libération xëy dikk ak ñun ci li ci enquête ba ñu cay def fukki nit ak ñaar yoo xam ne ñoo ngi toll ci fukket ak juróom jàpp ñaar fukket ak juróom-ñaar ngir bañ fitna dekki wàcce wilaas ba fayantoo am fa moo waral ñu wàccee fa escadron de surveillance et d'intervention bu gendarmerie gendarmerie nationale ma ngay gën a defaru l'observateur moo ko bind ubbil yéenekaay bi ngir bañ kenn yab suñum réew Sénégal ci wàllu kaaraange moo waral gendarmerie nationale gën yokk puissance de feu ci Chine fa la dem wuti fa Saly 2024 yi ñoo ko taxawal ñu taxaw ci tribune mi xëy taxaw ci opposition bu Sénégal bi ak li mu jàpp ne la ñu njëkk xeex moo di fexe ba Macky ak ni mu tëralee Sénat bi bañ a jàll ne bu ñu ko seetaanee ba mu jàll mooy jël nañu paaka bi leen di rendi daas ko ba mu ñëw jox ko Macky mu tëye tribune gis na ni ne opposition bi ci réew mi ña ci nekk bokkuñu fu ñu jëm ku ci nekk ak fa nga jëm ci jamono jooju Macky mi ñu ko séqal moom ma ngay dox